allo allo suma mbokki gambians la ak suma gaay yi ma déglu yépp man la samsudin sar man ma delu ci wat tay ji ci di samedi ci suba euh march ñaar fukki fan 2021 di continuer suma semua suma story bi ma wax ci affaire yi euh, suma TRRC <laughs> noonu laa ko tuddee waaw euh, démba nag defoon na delloowaat na suma xel ci euh, li ma doon explain ne moo tax coup d'état bi am 1994 July 22nd 1994 balaa boobu nag maa ngi emoon ci bési coup d'état bi 2 pm ñaari waxtu ci bëccëg tisbaar waaw ko ci suba teel li ma def yëpp fi ma jaar yëpp ba ñaari waxtu ci bëccëg bi ma koolee State House ñu wax ma ne gars yi dugga nañ State House soldaar yi jiite man pour man ñi ma foog na ñoo ñoo ñi ma xamoon da dee ne ñoo jiite coup d'état bi xamaguma ci kenn mooy woon ne xam naa ne bi ñoo ñëw Banjul ñi ma taseel ca Denton Bridge ba euh, mooy ne capitaine Sonko moo gënoon naa senior kañaleeg maa ngi yal na ko yàlla yërëm gaañu na bu yàggul moom moo gënoon naa senior ki ci toppa muy time boobu muy la jaame muy lieutenant Yaya Jammeh military police commander ki ci toppa mooy Edward Singhateh moom platoon commander la woon dama daf ma óorutoon C company la nekkoon platoon commander ndax ah, ah, B company waaye ñetta ñi ñoo lead company foog na ne C Charlie company pour ñëw attaque um, State House Sadibou Haidara moom it platoon commander la woon Euh, saabali euh, sana saabali ñoom ñaar ñoom ñoo jël bravo company ñoom ñoo attaque Fajara Barracks jël Fajara Barracks waaye man pour man xaw ma woon sax gisuma woon sax time boobu up that time xaw ma woon sax you know lan lañ ñoom ñaar demoon nañ sax Fajara Barracks ñi ma yëg ne daal ñi ñoo liit um, soldaar yi ñëw Banjul mooy woon Sonko Caame ak Singaate soo man foofu bii ma jullee ba pare man ah, ki ma njaay ponkal moo ma escorte ñun ñëpp ngi toog gannaaw gi ma ne leen man dama tem seet lanay xappun because ñoom ñëpp kenn mënu maa wax dara lu ci suma boppaay because ma leen naa laaj waaw dana xew naka ngeen organiser lii ñeneen leader si waaye ñoom ñëpp kenn mënu maa wax dara di nga gis ne ñëpp a confusion because booy itam xam nga yooyu suñu taa ñu bari dañoo toppee rek waaye du ñoo xam li xew waaw you know soldaar yu ndaw yi sa especially ñoom du ñoo xam li xew dañoo toppa seen seen leaders yi rek c'est-à-dire gis nañ ne leaders yi ñoo liit soo ñu ne accaleen ñu toppaleen soo mënuma dégg kenn kopp koppul njaay mooy njaay ponkal moo fa gënoon naa senior sax so ma ne lii du ko sottil xaaral ma jéem a dem yëndum waaye biñ bi ki ma jël si xaw ma ndax dafa yëg ne maa ngi fa because dafa dégg waaw dafa yëg ne sax maa ngi fa parce que dafa ñëw foofu ne ma ah, saa ñu ngay dégg ne yow yaa nekk fii muy koppal benn koppal njaay moom itam ku tuuti nii remember ma first name am waaye driver la woon ci army bi so moom ma jël see benn pick bu weex xam naa ne pick-up boobu gaa yi dañ doon jël moto jàmbur yi rek so mu ñëw ma dugg ci pick bi ñu ànda mu ne ñuy dem Fajara Barracks parce que. essence bi mu desee doyut because man dama ne ko dama bëgg ñu dem yundum mu ne ma essence bi nekk fii bëriwul kaay ñu dem Fajara Barracks ñu drive dem Fajara Barracks ci seen petrol dump bi gars yi fiilal ñu op waaye man fi ma demee foofu gis naa fa nag soldaar yu bari an ñoom ñëpp dañ dañ kontaanoon ba ñoom ñëpp ñu ngi am idée mi ne <laughs> dama ci bokka you maa ngi gis benn boy bu ma ko fàtte mu euh, Bojang Sajin Bojang bu ma ko fàtte mu ngi ta mu ngi maan benn anti aircraft mu ngi ko lifin moom it ci heavy weapon unit bi la nekkoon mu gis ma kontaan bi ah saa we had that yow yaa ngi woon radio Gambia you know waxuma ko dara because man you know I was just trying to make reason that I go on waaye foofu you know to my surprise you know ah, by the time ñu ñëw fuel ma gis Sonko génn si capitaine Sonko Kañal ak Mansour ma waaw capitaine Sonko ngi nii soo may ko jéem a laaj waaw lan lay happen how is it waaye moom itam mënu ma wax dara dama yee saa di saar di kay jeex na waaye ma gis ne agression bi nekkoon ci moom yëpp was out you know it's like you know mënu um, ma wax loo xam ne daal dugg na ci suma boppa tàngee woon ci suba di dóor suma dënn bi di coow noonu ba ñu jàppa you know he was calm ma ne waaw all right kon day lii xaw ma ma ne ko naka la ak lu xew mu ne ma waa nañ leen dem yundum ma ne ko yee man yundum lay dem parce que dama bëgg a xam ñana fa nekk ak lu xew mu ne mu ne ma waaw gaa yaa ngi yundum soo still maa ngi jàpp ne am na ñu nekk yundum ñoo xam ne xëy na commanda si ñu fa parce que téem ba bu Major Davis mooy di most senior Gambian officer in the moom after Nigerian si moom mooy top number one te moom mooy woon second in command mu nekkoon number two ñi ron Yundum Barracks time boobu colonel Audu you know colonel Audu Nigerian mooy woon commanding officer of Yundum Barracks one battalion so Major Davis mooy won deputy am although Major Davis engineer la. waaye you know dañ ko def député because Nigerian si loolu lañ bëggoon so ñu moom lañ def député so um, uh, ma ne ah kookoo ngi foofu ba pare maa ngi xalaat itam ne uh, Momadou Badji current national security adviser bi moom itam time boobu moom it la moom moo amee woon foog naa ne Bravo company you know Charlie company or Bravo company one of the companies so moom yundum la nekkoon. ak ñoom kii naka la tuddaati waaye Sonko moom moo amee woon Bravo Company so man you know mënuma understand mu doon acté daal so ma ne ah ñooñu daal xam naa suñ demee dinañ xam li xew waaye Sonko mënuma wax dara lu nekk ci ci ci ci ci camp bi ñu drive jógee noonu at naka Atlantic Road lañ jël ñëw Kairaba Avenue ñu continuer noonu jaar Westfield continuer ba Yundum and you know ma gis pocket of people ñu gisee di ñu tàccul ci mbedd mi you know nit ñi you know xam naa ni nit ñi time boobu lañu soog a xam ne sax coup d'état am na ñu ñooy yee yee yee waaye man benn tey maa ngi ragal ne dëkk bi you know bande yi mun nañoo jóg and so on as a matter of fact bi ñëwee ba um, Joswang boori um, ñu ko daan ooyee Texaco you know. Um, foofu gis naa fa sax benn van police ñu ngey jéem a ñibbi an ñu stop leen ñu ne leen buñ ñibbi parce que li óor mooy ñu dellu ci station si bant yi you know lii amaguñ sécurité bi ñu ngey ñibbi dañ wàccoon daal waaw das was about four o'clock yooyu three four o'clock soo ñu continue dem yundum bu ma eggee yundum itam ki ma fa fekka mooy Modou Badji capitaine bi la woon time boobu lieutenant Baro tay mbuub moom mooy MT commanda bi ak Sonko ñun ñettaay egg si soo ñu ma laaj leen you know what is going on waaye kenn febru mu waale ma ne leen waaye yéen nag you know dafa mel ni change nañ régime bi waaye man li riit ci coup d'état mooy ne soo change régime da danga war a replace the régime with another régime because kenn anybody mun naa take over the system te mun naa jaxasoo ci suñ dëkka bi so dama bugg a xam ñanay in charge ñu ñu ñu jéem a you know announce to the country ne leen di PPP government change nañ ko waay you ñu ngi ci process pour you know organise new government ak ñoom ñëpp you know ñu ne yee it's true you know bañ dem dugga ci office bi di toog in fact bi ma duggee ci office bi ci laa fe fekka Bun Jaak ak Keba Cissé Bun Jaak permanent secretary minister of defence ñu leen taa ci office bi ak Keba you know Keba Cissé mooy woon NSS director man ma laajte leen what is going on ñu ne well dañ leen fi indi and you know ñu organize sal leen tea ak yooyu pour ñu naan I swear to God you know ñu organise sal leen tea ñu génn waaye benn tey maa ngi laajte waaw who is in charge waaye ñoom ñëpp ñu ne waaw waaw waaw dañ saar nañ la fi ma ne ne waaw ana Davis ñu ne ma Davis ak ci jeel bi ci sel bi ma ne leen waay ñu ne moom moo Sirif Gomez ak Jotaan soo ma dem foofu dem ci Sirif Gomes laaj ko what is going on sa Sirif mu ne ma ah, waaw gis nga gars yi daal ci suba lay ñëw ñu jàppañu ñun ñu tëj ñu ci seel bi you know wax ma briefly rek lii happen so you know in fact ma ko doon wax wel man déggoon naa lii nag waaye ma ngi ko doon laaj waaye mu ne ma yee moom it xamutoon ne things were going on like that and we talk nicely waaye léegi maa ngi bugg a xam ma ne gars Badji ak Sonko ma ne leen waaw léegi affaire bi yëpp kaam na alhamdulilah ñii duñ leen génnee waaye kenn waxuma naka la ñu leen a génnee kenn buggut a jël décision foofu so man up to that time xaw ma lu xew ah. ma ne waaw ah, what are you going to do di laajte fu ma dugg kenn mënu ma wax ñenn tëj ñii ci ci ci ci jël bi ak ñeneen de ba gannaaw gi lañ ma ne Sajid Mejo Ibrahima pax moom moo moom moo responsable gars yi pour tëj. ma ne leen Sadji Mbejo waaw ma dem fekk Sadji Mbejo Ibrahima Ba ci si company office bi ma ne ko waaw yow Sadji what's going on dégg naa ne ñii going on mu ne a ah, Sadji dañ am orders ne ñu ngi fi tëj daal nañ leen bàyyi ma ne ñan leen jox orders mu dem ma from from from gars yi ko organise ña ne ko organise moom itam mënu ma dara he just walk away so ci laa ne waaw. for the first time mu doon on you ne la coup d'état su amee commande bi dafa change you know ñun we were so senior to these officers eh, to these NCOs laa ko non commission officers waaye mënatuñ ñoo déglu te man xaw ma sax kan la ñoo déglu ma ne waaw lii nag moom affaire bi soo ma demaat ñu dellu ci office bi gars yi draft. nañ try ñu draft a speech boo xam ne dinañ ko wax waaye benn tey kenn mënut wa ak oon ne ma ñun we are in charge baaji compagnie bi use nañ ko waaye mënu maa wax naka lañ use compagnie bi Sonko moom itam compagnie bi moom mu woon front line waaye dafa ak ni moom itam nekkul in charge so ñu waaye ñu draft a paper ne bii dañ koo jéem a ma draft a paper sax You know, be single. you know when they go announce new one, and you know there is a change of government and that you know like in the meantime you get organized and so on Why? You ñoo drive people. You ñoo draft paper bi noonu toog di man ma baaji sax ñoo jékki-jékki ñoo fa des sonko aki, kii um, uh, sonko ak baro ñu génn for a while ñu dellu siwaat ne ñu ne dañoo war a miti state house you know am nañ information from Banjul ne ñëpp dañ war a dem daja ji officers yëpp dañ war a dem daja ji state house ma ne ah well that could be starting point xëy na foofu suñ fa daje you will know something you know because man benn tey xam who is in charge so um, waaye biñ génnee tey ñu bàyyi fa ñoom bun jaag ak ñoom Kéba Cissé biñ génnee ñu dugga ci boos benn boos boos yi xaw ma GPTC la woon waaye dafa mel ni non du biis GPTC waaye it was mini boss la dafa mel ni mini boss bi ñu use ci suba euh, mooy mooy mooy mooy TSG bi bi ñu usoon ci suba pour dem ci béréb bi bi ñu yóbbu woon. ci um, uh, ci radio Gambia su ma ko su ma mémoire su fay boobu sax la soo biñ génnee ju fekka saa jaakali moo doon drive bus boobu saa jaakali saa jaakali nag time boobu man ma koo xam koppal la woon waaw koppal la woon corporal waaye nit ñu duggee ci boos bi toog maa ngi gis ne mu ngi takka ranki lieutenant second lieutenant you know ci ci ci ci lifinam bi um, ci soldat sam bi maa ngi naan waaw sa jàkkali kan ko jox second lieutenant waaye moom sa dégg naa ko ñu laaj ko ci freedom later ne ñoom ñëpp ñoo takkaloon seen boppa ranks you know that day in fact you know dégg naa ne sa problème bi started bi bi gars yi demee relax di jéem a génnee di nangu ranks yooyu on dem you know and ñu bëri ci lañ mer fiil ne dañ leen bitré waaye ñoom ñoo Sadio ñoo ñoo nekkoon ci front line bi da dee di ñu attaque different camps si ñoom ñoo nekkoon ci ñoom Sadio naka ñoom e IMCC ñoom Dot Fall ñoom ñëpp a nekkoon ci front line bi soo ñoom ñëpp dañ foogoon ne right bi ñëpp am lañ am ci système bi waaye loolu dinañ ci ñëwaat later waaye bi jógee foofu ñuy drive ñu ñëw ba Jimpex man maa baaji waaye Sonko ak kii um, Baro ñoom dem nañ xaw ma fan lañ dem ñoom ñaar waaye Baro mooy woon moto transport officer bi soo boobu naa lijjanti moto moom sax daf ma waxoon bi ma egsee ci suba vraiment bi ma fa egsee ci ci daf ma ne you know um, uh, dafa am benn officer benn soldat bu daw ak caabi moto yi foog naa ñu ne Moussa Mané la woon mooy woon driver former commandant Ndaw jaay ñu ne ko ko yóbbu caabi moto yi so moom moo ñëw mu ne bi affaire bi tàngee moom moo ñëw mu haat waya moto yi without caabi ñu taal leen he told me that because moom moto transport la def moom mécanique la woon rek you know boo xam ne you know like gannaaw gi lañ ko def commission ko waaye moo mécanique la woon so am um, uh, so ñoom ñaar ñu disappear man xaw ma daka lañ demee sax waaye on our way ñu ñoo boor a Jimpex ñu tase fa ak Saabali ak Haidara ñu ngi def checkpoint so ñu stop ñu and then Saabali di ñu laaj fu ñoo dem ñu ne ko wel ñu dañ dégg ne you know um, uh, dañ war a am meeting state house te xaw ma lan la mu mu tóob di daal you know mënuñoo wax sax am fayda Saabali moom musta ñor. parce que duy wax lu am fay ay you know like mel ni dof bu wér rek you know jaxasoo be moom dafa jaxasoo woon da dee you know di open call di tëb di dal mel ni fel you know like Sabally was a little guy koo xam ne you know ñu dañ ko jàppee woon miskin koo xam ne dafa yar woon du wax dafa baaw Sabally gannaaw julli ñëw riit alxuraan yéen muy riit novel loolu rek la fa nekkee woon Sabally you know man bési coup d'état bi man sa ma jaaxal parce que man saabali dama ko amoon naa moom nice bi ñaari twice euh, colonel Sow ko bugg daaxa ci armée bi and I stand beside him ne du ko daaxa force one mooy bi mu nekkee Kudang you know Kudang you ñoom ñu dem di hunting you know ñu moo troops yi gars am an accident ñu jam benn mbaam mbaam bi daanu booy dem bi fi ko foree mbaam mbaambil tóob benn soldat tiit you know pull trigam mu rey mu rey benn sergeant you know and it was a big thing you know so ñu ne waa lu mu yóbbu jël bal yi di dem di ruba pour mbaam yi waaye bi fay ne out ñu ne eh non lii lu yàgga la you know time bi fa you know ñoom Laye Conté nekkee sax you know Laye Conté you know ci I think time boobu la ko Ndaw Njaay autorise on pour mu ñu day use because they are bored ñu duñ dee am lu ñu def ñuy jël round si di dem di def xontin so dafa yàgga so ñoom dañ bëggoon naa ne um, saabali dafa violate you know rules yi ma ne leen non violate rules dafa amoon lii command decision la woon te duñ ko mun a ko mun a def dara duñ ko mun a koot maasal gannaaw yàlla billaahi ñun ñoo taxaw ba saabali defuñ ko dara waaye ni ko doon dañ ko doon daaxa dañ ko doon koot maasal ko the second time mooy bi gars yi démonstré soni soldats yi biñ jógee Liberia second time moom mooy woon duty officer you know first one bi sax tane woon na waaye second one bi gars yi dañ dem dugg ci jël seen fetel di taal bali ci kam bi first démonstration bi kenn taalut bal waaye bii moom dañ taal bali ci camp bi loolu choc nag colonel mu ne because Sabally moo nekkoon duty officer dañ ko court martial you know and we stand ñu ne leen no it's just like ne you know moom munu ci woon dara what could he do dafa nekk coincidence la rek waaye anybody ku fa nekkoon mun nañ la lii laa amoon naa saabali saabali soo ko ne woon koo loof ci système bi mu ne la saam saar billahi wallahi talaahi waaye coup d'état bi dafa mel ni ku soppeeku mel ni dof mel ni xamul ma ci àdduna ak àllaaxira soo waaye ñu waxtaana moom noonu mu ne waaw ok mun nañoo dem ah ñun ñu dekk ci moto bi waaye by the time ñu egg sitting corner ñu dégg radio announcement boo xam ne Sonko ak Baro ñoo ko doon def ci radio FM bu George Christensen bi di yëgle ne yee eh, coup d'état am na maa ngi amee woon clip boobu sax yéen di wane ne coup d'état am na waaw ñu ngi yëgal dëkk bi ne soldaar yi teg nañ over nit ñi lii wax lële lële soo may ne waaw ñii. ñii liñ doon wax yundum ñoom dem nañ def ko di waaye it is still good Sonko wax na foog naa Barrow wax na ak if am doon mistaken sax Edward wax na fa Edward Singate waaw waaye Edward foog naa ne leetaral ñëw yow waaye they make announcements di wane ne you know um, xaw ma sax fan lañ dajee Edward because Edward moom dafa moom itam fu nekk la nekkoon di wër waaye biñ egsee State House. you know ñu fekk fa Edward fekk fa Jammeh a lot of officers ñoo xam ne ñëw nañ teewee si you know ñi ma mun a remember still ne nekk nañ fa Barrow fa woon ñëw na later on Barrow egsi na Sonko egsi na kii uh, Sirif non Mbay mu ngi fa woon Sirif Mbay Antumaan Saho mu fa woon man maa ngi fa woon Mamat mat caam ngi fa woon ak um, eh, foog naa Biné Minte mu ngi fa woon ak waaw feesis yi daal ñi mun naa distinguer même waaye officers yu bëree fa nekkoon docteur Ndiaye Pacha I was not am not sure ndax mu fa woon oo mu fa waaye yaakaar naa ne mu ngi fa ooruma nag waaye parce que moom docteur Ndiaye dafa jógee woon koos rek moom mu ngi woon diif sax moom su ñëwaan sax duy sol uniforme dafa sol mofte la doon sol dees yooyu yëpp yéen soo ñu toog nag jàmmee ngi toog uh, Edouard a ngi toog ñu ngi xaar yeneen officers yi waaye somehow foog naa ni jaame foofu lañ ko yëgalee ne am nañu jaar ci ron dem di def announcement de teg nañ over government bi te moom mënu koo understand moom nag ci la jóg itam you know coow fa coow lu métti di wane nag fii ñoom fii duñ fi nekk ñoo xam ne ñoom ñu def fight bi fight ko ñeneen ñi ñëw ne dañ leen na undermine pour take over you know take over government bi eh, take over the whole narrative from them ne ñoom they work for it and they came to this point so is their show te ñoom ku ci lu fin pare nañ cee deewoo and you know man sa keroog jóg naa sax man itam man dama foogoon ne ñun ñëpp la doon wax sax waaye man xaw ma woon time boobu ne sonkoo ñii la doon sonkoo ak baro la doon wax so ci laa jóg nag man itam man wan ko ne ko loolu warut a nekk wax gi ñun xamuñ li xew te dëkk baa ngi jaxasoo lii amul ki nekk moom kalee ko moom waaye jaama am na nañ jéem a try so ñu am some little exchange Edward si ngaa ti jóg mu leen capitaine Sarr baalal ma ma explain na leen li xew for the first time ma dégga ña na organise coup mu ne ma nga capitaine Sarr gis nga ñun coup d'état bi ñu ko organise mai mai biñ amee exercise bi Kudang tey mbubu Nigerian si yaa ngi ci seen diggi cow mu ne foofu lañ toogee ñun five mu ne ñoom five ñu decide ne dañoo. organize a coup waaw dañoo toppal government bi parce que government bi sona nañ ci government bi ak Nigerians si loolu lay wax mu ne ñoom five yi nag mooy woon lieutenant lieutenant Barrow Basiru Barrow moom Sabally um, Alaaji Kante ak Alpha Kinte mu ne ñoom ñaar ñoom juróom ñoo toog ñu agri ne dañ ko organise te ñu ñoom ñëpp ñu d'accord ñu ne seen leader bi mooy Basirou Baro man nag loolu surprise si ma woon parce que Basirou Baro wel ba fa before Nigerian si ñëw ci Gambie bi moom fu mu toogaan dafaa ne acca leen ñu organise coup d'état PPP dañ ko fi war a génnee they are useless ñun mun nañoo ron di country loolu wax na ko million times ba nit ñi dañ ko xamee woon fu mu toog rek dañ leen organise coup acca leen ñu organise coup dama foog ne itam ne xëj na bés boobu daf ko wax ñoo xam ne ñun ñun mi daan di ko xool gis ne you know we were not taking ñii teg nañ ko seriously moo tax ñu jox ko leadership role bi waaw waaye Edward ne ma Edward ne ñoom ñëpp a ngi toog Kante nekku fa ak Alpha Kinte waaw Alpha Kinte nekku fa Alaaji Kante nekku fa waaye ñetta ñi um, kii naka ñoom ñaarang fa Edouard ang fa Barrow ngi toog waaye saabali nekku fa ko saabali la ñu wax ñoom juróom um, baro moom Edouard saabali Alpha Kinte Alaaji Kante so mu ne ma waaye last minute ñoom ñu bitré ñu nii la ko waxee mu ne ma naas bi ni dañ ñu or mooy Baro ak Alpha ak Alaaji Kante ñun ñëpp a ngi toog officers yëpp a ngi toog moo tax ma ne la ñiy ñëw ci TRRC bi dañu ay fenkat yoo xam ne buggu ñoo wax dëgg waaye lii moo happen duma ci toog nag danaa leen billaahi wallaahi tallaahi nallaahi oo laal alxuraan indil leen ma laay detector test ngeen xam ne li ma la wax dëgg nga indi ñeneen ñi lay detector test lii lay xapun dadde soo biñ waxee loolu you know um, mu ne waaye biñ gisee nañuy bitre nañu ci lañ def contact ñoom jaame and uh, you know uh, ak Sadibou Haydara ci lañ contact jaame ak Sadibou Haydara ñi lay wax ñooñu ne ñoom they are willing to take it up and given the structure then Jammeh moo gënoon a senior so mu teg di leadership this is more or less image bi pentin bi ñu kii jox um, Edward so léegi foofu ware nañu ne Sonko although moo nekkoon ka nekkoon ca front line ba nekkoon captain he doesn't mean anything mu ngi toog Sonko ngi toog waxul dara in fact dégg naa ne sax biñ tasee Sonko dafa dem ci moom ne ko. dafa dem ci Edward ne ko xanaa di ngeen ma jox dara Edward saaga ko ne na fa jógee moo tax you know like um, uh, moom in fact right away daf fa jógee and uh, waaye biñ waxee loolu yëpp kaam Antoumane Sakho ngi toog mu ëlbati ko ne ma Sarr am telling you tey moom wax dëgg gi dama ko wax dem set wecc ragaluma ci rusuma ci dara lii yëpp nag bind naa ko ci suma book bi mu ne ma Sarr ah lii de moom set na wecc lii booy yi seen soo la soo suñ leen mënut a jàppale you know waruñoo def dara ma ne yee no problème you know it's okay man nag at that juncture dama décide woon ne su ma demee kër you know damaa damaa a dëkk bi sax because you know like dama fi ne bokkuma ci lii te duma mun a toog fii di xaar loo xam ne xaw ma fu moo jëm dama décide woon ne dama you know waaye cat tit bi ñoo laata jóg pour tasaaroo ci la Basiru Baro mu ne eh baalal leen ma de man nag nekkul ne dama leen oroon man timing bi moom laa bëggoon pour mu ceeñ parce que ñun julaay lañ waxoon waaye man dama bëggoon ñu xaar ba décembre waaye you know waaye léegi since am na nañ leen ne alhamdulilah liñ bëggoon am nañ ko waaye ma leen naa ñaan nag ngir yàlla yonente ba yéen dama leen ñaan pour ngeen reteen fii Samsudeen Sarr ak capitaine Mamad Thiam capitaine Sarr ak capitaine ma Thiam because ñii suñ senior lañ ñu ñu gën a macho ñu ñu gën a am expérience and I think ne seen seen seen dimbal di ngeen ko soxla pour affaire bi ñu stabilise the situation ñëpp d' accord ñëpp d' accord ne oh yes yow dëgg la ñëpp ñu d' Edward d' jaame itam ne yes let's keep them around jaame itam jaame gendarmerie la woon after gendarmerie ñu def TSG moom mu ñëw bokk ci armée bi bi mu ñëwee ci armée bi gars yi yu nekk lañ ko daan waaye di ko discriminer ah jaame you ko demut koon cause ni I was his best friend moom itam you te time boobu maa ngi ministry of defence billahi wallahi talaay jaame su toogee ma toog dina la confirmal ne man maa taxaw dem ci American embassy bi make sure ne utal nañ ko military police corps mu dem mu dem America dañ ko bëggoon a yóbbee na Sajin Mejo kees sa Angleterre waaye military police corps bi maa ko ko toppatool ba mu dem America an bi moo dem dafa ñëw be suma office gërëm ma ba toog ci suuf waaw soo aw ma woon dara against him am dara against me Viviane Laye man sax dama ko daan su ma tasee woon ah, moom ci mbedd mi sax tey mu ngi nekk gendarmerie dama ko daan ne yow fituloo ci gendarmerie yow ci armée bi nga fit we had the best of relationship waaye nag coup amee yii yëpp dafaa dee waaw coup d'état su amee yii yëpp dafaa dee sa best friend da nga mun naa turn into your worst enemy sa worst enemy mun naa turn into your best friend musuma imagine ne saabali dina ma arrest respecté moo ma arrest yóbbu ma mayal tuum su ma benn tey lu tax mu arrest ma soo noonu la coup d'état mel yeneen dëkk suñ maas gi because dégg naa ne time boobu ñun ñëpp ñu ngi ñoo wax ne afterwards lañ ñu wax sax loolu moom dinaa ci ñëw later waaye you ñoom dañ planoon ne ñun officers senior officers yëpp dañ ñoo execute ñu ne loolu nag was an initiative uh, uh, idea bu jëlee woon si singaate la ne senior officers si yëpp dañ leen a captain and above yëpp dañ leen war a execute including naka la tuddaati senior government officials yi you know ah ñoom nag am na ñoom ñoom ñoom ñoom am na ñu wane ñoom kante kinte ak baro soo gisee ñoom ñu ne bokaatuñ ñu ne ànduñu woon ci loolu waaye loolu loolu di gëmuma ko parce que soldat buy organise coup d'état xalaatuloo ci ne reyante du am. kon yow waxi yow li ngaa xalaat xamuloo ko waaye foofu lañ loolu loolu biñ ñu ko waxee noonu and uh, ñun ñëpp ñu toog ñu ne waa alright dinañ dinañ def loolu ñu ne na Sam Sarr stay ñu stay man ma Mamat Thiam looloo ñu taaj State House pour ñu bokka ci you know um, organisation au transition bi from ci coup d'état bi coup d'état am na formaguñ government organiser guñ dara ñun ñu stay there with them waaw and uh, um, uh, waaye yëpp a jaxasoo woon in fact balaa ñoo tasaaroo sax dañ jékki-jékki rek dégg ne saabale ñëw na di coow ne dafa fay lu tax ñuy am meeting waaw lu ta ñuy am meeting in his absence in fact Singaate sax wax na loolu Singaate wax na ne wax nañu ne waaw léegi li ngeen war a understand mooy ne ñoom ñi ko organise ak jaame muy jaame mu ne moom Singate Sabally ak Haidara ñoom ñoo am right to organise this meeting so in the absence of Sabally ak Haidara ñun waruñoo organise meeting you know so ñun ñun xamuñ woon day happen man eh, ok so Sabally sax gannaaw gi la ñëw di coow foofu ne dafa open fire waa lu tax ñuy organise meeting loolu bla bla. waaye moom tase nañoo moom jim jim pex ne ko ñu ngey dem dégg nañu ne ñoo organise meeting dem nañu dem leen you know and then we went mu ñëw di coow foofu di wax lu tax ngeen waaye moom he was just stupid parce que caabale ngeen ci road block si mu ngi open call nit ñi di dama organise fight you know de fii ñu ne saabale dafa takka téere léegi-léeg mu jom ñu ne soldat yi ko ne mu ngi bëgg a naaw nekk dof boo xam ne kenn xamul léegi dafa jaxasoo woon moo tax saabale bi biñ koo téye Sabally àndut sagoo moom dafa foogoo ne every day coup d'état la every day coup d'état suñ ko stoputoon sax soo moytuwut système bi dina fool si seen loxo you know kaw boo xam ne kenn xamul boppa bee génn gi naka la mel xew xew xew you know and this is why mu you know 11 novembre ñu bëri sumay ñu lorul because of dof yi this is what happened so man maama ma caam loolu lañ ñu retene ci in fact bi mu ñëwee di wax noonu man dama bëggoon naa ñibbi sax mu tasee man ci bunta bi ñëw ne ma ah saa waaye dégg nañ ne yow wax nañ la ne nga step nga help ñu you know you work together waaye fooy dem ma ne ko non man damaa dem kër because I'm going to see my wife because ca suba benn tey maa ngi run around waaye you know so waaye su ma paree dinaa ñëw so ci laa jógee foofu ma ñëw su kër ma bàyyi leen fa dem su kër dem ci suma jabaar seet suma doom yi and so on and ñëpp it was like what is leen well suma jabar ma explain na ko mu ne ma waaw yow ñëpp a wax ne da ngaa yow yaa jël radio Gambia and so on ma ne ko ma explain nal ko li xew yëpp daal you know and uh, ma ne ko nag maa ngaa dem State House laay fanaan ma ñëw ceeñ sangu jël di maa ji sola suma uniforme dellu waaye bi ma delloo State House ñun ñëpp a campé ci saal bi keroog man remember naa time boo kenn éggagut fenn ñu ngi toog man ma jaame saa non non Saabalindi fanaanu fa man Jammeh ak Singaate ñoo fanaan ci saal bi ñun ñëpp you know ci ci ci lower floor bi den ci di di following morning in fact that day sax lañ am you know um, amoon nañ sax emergency that night yes amoon nañ emergency that night ëllëg nag dinaa leen wax emergency boobu biñ dellu bi ma dellusee bi ma dellu see state house that night emergency biñ am ak naka lañ ko solve because dama egg dañ egsi rek dama egsi rek ñu am information ne Sénégal ñu ngi mobiliser seen troupes yi ñu ngi leen a amaas ci troupes yi ci ci border bi te dañ bëgg a attaque di Gambia to stop the coup waaw loolu that was the first information biñ jot bi ma egsi state house and it was a state of emergency tomorrow nag su neexee yàlla dinaa leen explainal naka lañ résolver problème boobu thank you very much ba ëllëg su neexee yàlla su leen ma dégluwut ëllëg su leen ma dégluwut ëllëg te na di ngeen ma dégg gannaaw ëllëg su neexee yàlla you know so dama ko bàyyi foofu rek and uh, leen yëgal ne rek thank you very much dinaa leen explainal story bi ni mu yàbbu ne ak niñ demee thank you